التي جاني أبلغ njiitalu Cheikh Ahmed Tidiane Sy daayira Nuurul Basar ñoo leen di woo seen fukkeelu édition laylatul katmiya bu ñuy amal àjjuma 25 octobre 2019 ca parkingu HLM 6 si wetu marché ba boobule programme ni lañ ko fas yéene tëralee 9h dinañ fa jàng alquranul karim ginnaaw julli tàkkusaan hadaratul juma dina fa am si njiitalu Chérif Sidi Hamza ak Tidiane surtout Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu buñ ca paree dinañ julli timis ginnaaw timis googu dinañ teg reer yi 22h ñu fas yéene door jotaay bi jotaay bu ñu nar a tijjee ak alquraanu karim ki leen koy defal mooy Moussa Souane buñ ci paree dinañ jox kàddu gi Cheikh Abdou Ndaw di mu xaddamu imaam Hassan Cissé pour mu def waxtaan bi boobule jotaay ñu koy zikkër ñooy soxna Aïda Faye mu baay Baba Gadj Pape Moussa Samb Rahim Dia daayira Nourou Bassar ñoo leen di woo seen fukkeeli édition laylatul katmiya bu ko kenn wute tataduni zafaraatu kulla aw